Pauline Manga qui était de passage ici dans cette bi c'est toujours un plaisir de recevoir ces personnalités bien sûr euh, chapeau à elle et puis bonne chance aussi à notre sœur de Mbodiène euh, euh, chapeau on est fiers de toi et puis bonne chance que la grâce de Dieu t'accompagne alors sur ce il est là l'artiste qui va clôturer notre émission de ce mercredi on le présente plus au Sénégal il s'appelle BMG de réveiller des artistes le matin matin parce que dañuy ñëw le matin ici avec amour mais ku xam artiste xam ne day liggéey ba 4 heures 5 heures 6 heures du matin artiste bi nga xamante ne invité nañ ko tey il était en tournage clip euh, hier tard la nuit c'était même pas évident mu ñëw tey fii donc il s'est sacrifié lui et son manager ñu def déplacement bi c'est parce que am nañu respect ci téléspectateurs yi am nañu respect ci animateurs yi nga xamante ne ñoo leen invité BMG nuyu nañ la. pii wala ji pii wala ji. kan la ci war a doon ñu xool la bu ci xam ne jour. attention. non Olivier jàppale am na marié am na célibataire nag xaw ma nag. mu wax ba pare. pii pii pii la wala ji. la wala ji la voilà. yow laay laajte balaa may déclarer. pii la am na marié am na célibataire. bi kan du yow. <laughs> Ateba Music. jabate on the bed Wai jabate Kala yula sangoi Jigi tuku abdini yatara nijugu yabi koni bara bolo itebi balima jugu biki kele ni bara bolo itebi nitere jugu bi koni bara bolo itebile na na na amma musa yanke duwa hude demi hude duwa hude amma musa yanke duwa hude kuma kuma kamsa duwa hude journée boobu sans son sans dara fa ñu neex lekkee fa ñu neex lekkee fa ñu neex naan. Mhm. fa ñu neex daagoo takkab jawar la sa waay woon. <laughs> c'est un hommage à mais ok mais loolu accent accent lébu la. waaw waaw exactement. ok la lébu nga wala. waaw lébu laa lébu laa. yow ala lébu nga. waaw la lébu bi yoof ok lébu bi yoof nga di bëggee lébu yi nga xamante ne ñu ngi si si Sénégal njaay yëpp xam nga. ok Ngor Wakaam. Ndeer Bargny. tubaab Jalaaw xam nga di bëgg Lebu yëpp. ok di leen wax ne seen doom mu ngi nii Mboro fépp foo xalaat fu Lebu yi nekk. <laughs> mais Khadija moom mooy soufflé Khadija mooy suñu réalisatrice. Ah. moom moo naan pii lan mooy BMG. BMG diminutif Ben Marwan Junior la quoi. Ben. ban Ben Marwan Junior. Marwan Junior noonu la tudd. non non non tudd ma noonu de. alias la. ah alias ba léegi ba léegi maye gooñu sa tur dëgg quoi. non non non non mais fu mu jógee BMG. bon. kan moo la ko tuddee longtemps la benn Marwan Marwan la benn affaire la boo xam ne nii dañ ma ko yàgg wooye quoi. ok Habib Marwan tam nekkoon ci série 24 heures chrono. chrono tamit benn tour la boo xam ne dañ ma ko doon wooyee depuis comme tay ma ne Pi Marwan. comme ñu ne Pi mooy Marwan. Marwan mm-hmm. comme Pi mooy Marwan junior. Mm-hmm. comme ñu ne Ben mooy Marwan junior. après nag ba may tijji sama compte Facebook ma def ban Marwan junior après ma ma ma ne fokkit benn Marwan Junior laa. on maintient ça quoi noonu la demee quoi. ok c'est super et depuis quand nga nekk ci game bi Ben. bon je dirais pas c'est pas récent c'est pas récent maa ngi xool sama premier son maa ngi ko enregistré 2013 mais mun naa wax ne 2015 laa nekk rappeur dëggantaan quoi. 2015 mm. laa commencé di def ay projet affaire yooyu noonu quoi. Mm. du coup jàpp naa ne maa ngi fi depuis 2015 quoi. ok exactement. 2013. 2013 laa njëkk def son. Mm-hmm. mais boobu xam maa ngi doon foo di lamb di lamb nank nank waaw ok mais affaire bi kañ la la jël en main nga ne là carrément c'est du sérieux là je prends ma carrière en main. je pense c'était en 2019. boobu fekk gars yi xam nañ ma sax mais nekkuma woon rappeur à 100 pour cent parce que y avait les études tamit. ok je faisais la licence. ok waaw j'ai gradué en 2019. Uh uh-huh. donc euh, laa bàyyi jàng quoi bu ma amee sama licence ba pare 2019 laa nekk rappeur à 100 pour cent. ok lan nga suivre yow. transport logistique. Transport logistique. Yeah. ok mais c'est rare de nos jours de voir des artistes tellement engagés si si yi dem ba am bac continuer si euh, dem licence et tout donc on te dit félicitations. kon loolu dafa bokk si euh, dafa bokk si si si si artiste mu am bagage bu bu bu mel noonu. un bagage intellectuel c'est le minimum mais c'est pas nécessaire quoi parce que mën nga éduquer sa bopp ci affaire yu ne moom sama njàmbaar quoi parce que j'ai un papa qui a été derrière moi m'a tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax am na lu bëri lu nekk ci man te moom la quoi ok c'est à cause de lui que ma sañ a taxaw ne def naa am naa sama étude am naa nangam ak nangam parce que su desoon ci man rek xam nga ba nga ba may nekk booy man moom mooy loolu donc charatou ma paps maa ngi koy bégg bu baax a baax a baax. ok alors on est à 10 minutes de la fin de l' émission midi la ñu war a jeexal bëggoon nañ waxtaan bi gën a yaatu et tout mais xam naa dañuy tënk question réponse yi. Euh, juste benn laaj bu ndaw. parce que BMG j'ai suivi ses débuts sa carrière. Euh, il a été dans un label qu'on connaît tous, qui est le label Reptile, avec euh, Deep, mm -hmm. avec Samba Peuzzi. Mm -hmm. On a vu qu'ils ont chacun pu tracer seen yoon ci toujours en restant dans le même label. Mm -hmm. yow déjà qu'est-ce qui t'a motivé à quitter ce label et puis gis naa ne bi nga génnee ci label bi vraiment la sa carrière jël forme. est-ce mhm. que c'est bien ça ou pas et lu tax tu as choisi de d'être autonome et indépendant. bon. man comme lu may wax chaque jour rek am na lu bëri loo xam ne nii si man la nekk reptile laa ko for for forger quoi. Mhm. xam nga ñoom def nañ si man lu bëri quoi. donc on a su créer une famille xam nga mooy waral yenn affaires yi mënul changer ba léegi quoi. Mhm. ma fi yàlla maa ngi ak gars yi ba léegi nag xam nga gars yi dañuy demalante di ñëwalante su ma jaaxlee dama leen di woo xam nga. toujours de bonne relation man maa ngi jël sama yoonu bopp di joobal sama bopp quoi. Mhm. on entretient gars yi su ma de comme nu mu la ko waxee saa yoo ma jaaxle itam damay dem si gars yi lu ñu seekoon jamono boobu noonu la ñu ba léegi quoi. boo ko wax gars yi génn ba pare di saltal non non effectivement comme nu ma la wax a on a su former une famille. Mm-hmm. te loolu noonu mu ngi am ba léegi quoi. so charatu waa Reptile Musique charatu Dip charatu Samba Doughboy Kenezi Dizzy Kha everybody mm-hmm. mm-hmm. même ñu doon nekk si gannaaw tamit. xam nga mais rëccuwoo le fait nga génn tu te sens plus à l'aise euh, en prenant ta carrière en main solo. Eh, bien sûr parce que damay gën a concentré wu sam bopp quoi sa bopp ouais. gën a concentré wu sama bopp loolu moo nekkoon loolu moo nekkoon wax bi quoi ba ma commencé job ak ñi may jobal pour gënoon concentré wu sama bopp la quoi. ok mais 2019 ba 2023 bi yàggul 19 20 21 22 23 lan nga jot a génne euh, mixtape. Hmm, EP na naa benn EP c'était en 2019. Uh -huh. balaa may teg sama concert bi si ses génnoon naa benn EP bu tudd Volar Mo Boulis. ok après en 2022 j'ai un album. de Defo Marwan waaw. ok am na liñ la. sacré récemment bien sûr dans mm. Hip Hop Awards euh, fii euh, au niveau de. et, et mooy meilleur album meilleur album de l'année. meilleur lyriciste tamit de l'année. kon deux trophées nga am. exactement. Khadija ngi dégg ce que. meilleur album de l'année meilleur lyriciste. ok euh, exactement donc nga yenu ñaari trophée yooyu ñaata artistes ñoo fi nekkoon Sénégal si année bi génnee ay projet génnee album ñu ñu fal la meilleur album. Mm-hmm. Euh, ça t'a fait quoi euh, tey bañ la joxee nam loolu. waaw xam nga toujours reconnaissant quoi. Mm-hmm. xam nga tamit soo liggéeyee ba nga pare ñu woo la ne la sa liggéey moo gën a rafet. Mm-hmm. xam nga loolu noonu dañ koy rafetlu quoi dañ koy rafetlu ko gars yi job foofu noonu gaa yi nekkoon si nomination yëpp. comme ni ma ko waxee woon bu ñu may jox prix rek ma ne. képp ki nga xamante ne ni am nga dix wala vingt personnes ba ñu ngi déglu li ngay def foo foo nekk ñu fekk la fa foo wootee ñu wuy la. Hmm. di lay envoyer message di la supporter di commenter sa ay post hmm. gagné nga trophée ba pare quoi. Hmm. tu vois mais lan moo nekkoon particularité album bi ba tey ñu ñu fal le meilleur album de l'année. bon je pense album bi lu lu ma si lu ma si gën a def mooy wax si sama bopp quoi. wax si sama bopp et je pense que à travers wax si sama bopp les gens ont relaté quoi. ñun ñëpp ñoo bokk même dëkk. ñoo bokk même réalité. façon yar yi mooy wuute rek ak mhm. mentalité yi mais jafe-jafe yi may jànkonteel ngay jànkonteel problème yi may am la kii di am mbégte yi may dal la kii mooy dal mooy dal Oly mhm. donc pour man dama génne li nga xamante ne moo nekk si man et j'ai été très moom tamit si album bi xam naa loolu moo tax gars yi ñu relaté quoi mhm. ok beneen euh, prix bi nga jël mooy meilleur meilleur lyriciste ça veut dire quoi bindkat bi daal kon yaa dàq bind Sénégal non ab bii nii <laughs> xam nga moom je suis une personne. dañ lay bindal wala yaay bindal sa bopp. maay bindal sa bopp maay bindal sa bopp. maay bindal sa bopp. ok eh. donc c'est important gars ñoo ko déggandoo ñaari prix yooyu noonu moom nga xamante ne moom la am di ko féliciter euh, moom euh, BMG waxoon nañu ne dinañu ko indil je sais pas le pourquoi tu l'as pas amené les deux prix. fàtte rek. <laughs> ok fàtte rek billaay. affaire yi moom fees boobu xam nga. ok xaw naa am tuuti retard tamit. retard c'est vrai c'est vrai génn naa ba si yoon bi sax lañ ciy door bàyyi xel mën a gas quoi. ayca 2024 euh, mu ngi waaj a ñëw mais avant 2024 di ñëw am nga benn projet bu important bi ngeen di waajal. Mhm. yéen artistes euh, rappeurs yi. Mhm. Euh, ban projet la ban concert la. bon le 23 décembre. Arena gars yi dañuy def foofu noonu taaru seen Galsen quoi TRG show. ki nga xamante ne mooy Tafa. Sénar Vision. mu nekk euh, initiative bu nice quoi. Mhm. initiative bu nice la. di ñaax gaa yi tamit ñu xam ne malgré que am na individualité yi si nekk. Mhm. mais affaire bi rap galsen la pare pour jëmal quoi. ok tu vois di wax ni que képp ki nga xamante ne ni da ngay supporter rap galsen tu te dois nga ñëw taxaw. xam nga parce que les MC qui sont là-bas ñooy MC yi nga xamante ne nii comme ni ko gars yi di waxee ils sont en vogue wala yi nga xamante ne di def dara si dëkk bi jamono bi quoi. Mhm. on est pense. 17 artistes 17 artistes sénégalais donc il faut ñi nga xamante ne dañuy bëggee rap Galsen ñu ñëw taxaw foofu noonu parce que warul nekk luy cóol quoi xam nga ça doit pas être parce que ce qui se fait de bien sur le rap Galsen moo nar nekk foofu. di wax ne que na gars yëpp ñëw teew ñu représenter rap Galsen jëmal ko may ko dara quoi. alors le 23 lan ngay lan lan ngay pareel sénégalais yi le 23 décembre lan ngay pareel sénégalais yi nga xamante ne tey euh, nar nañ ñëw fekk si foofu BMG. yee énergie. mënum ku ma xam si concert xam na ne énergie quoi. énergie te waa Yoff pare nañ bu baax a baax pour ñëw donc. kon waa Yoff dañu jóge fii dem ba arena pour eh, concert bul sonn bul sonn. bul sonn yi dañuy ñëw gars yi ñëw bu baax a baax xam nga di gars yi tamit nañu indi nit yi ñu ñëw nit foo mënti jógee na ñëw yoraate l' énergie xam nga ku nekk du nangu sa moroom yóbbu la dara. tu vois donc na gars yëpp ñëw. Moustapha nee na moom fi euh, nga xamante ne moo nar a gën a indi public moo nar a tëj concert. moo nar

le tour du Sénégal parce que là maintenant tu as un produit quand assez solide et sérieux on te connaît bien fii mais est-ce que tu comptes faire les quatorze régions Inch'Allah mm -hmm. Inch'Allah c'est en un projet qui est déjà en marche xam nga léegi ñu entamé affaire yi quoi mhm. peut-être si mois de décembre bi léegi ñu mouvement yi quoi sa relation ak Paco nice c' est mon frère. waaw c' est mon depuis longtemps maa lay wax la 2013 laa njëkk def son. ok c' est premier son. Uh-huh. moom tamit mooy premier son ñoo ko bokk man moom. donc c' the best ñu ne da ngeen niroo aussi. H the best sama gaañal la. ok sama gaañal la shout to H the best. dëkk naa këram pendant un an presque. super tu vois a fait du chemin ensemble. Uh-huh. c' est mon ami c' est mon ami. c' est un bon c' est un très bon ami. ok xam nga audi bi maa <laughs> ma gën a xam ak jabaram bi Kal si message na nee na mu ngi lay féliciter di la encourager. yee moom tamit sama grand la RFM moom ok ak lan mooy sa dernier kàddu yi nga xamante ne bëgg nga ko lancer à l'égard bien sûr de toutes ces personnes qui nous qui waaw maa ngi wax ni que projet yi ñooy ñëw. et que TRG bi mooy suñu kanam. na ñëpp ñëw. na ñëpp ñëw am na ay yu ñuy waajal tamit dinañ ko communiquer léegi léegi. Mhm. xam nga di gën a ñaaxaat sénégalais yi quoi di wax ni que dëkk bi. fii dara yombu fi quoi. dara yombu fi quoi et ndaw su amee dara rek daa fekk dafa ko liggéey quoi. Uh-huh. xam nga na ndaw yi gën a liggéey ñu xam ni que dëkk bi ñu nekk nii foo mënti jóge si àdduna foo mënti jóge si biir Sénégal mën nga fi nekk lu nekk xam nga te lépp liggéey moo koy maye quoi. non liggéey moo koy maye quoi gars yi nañu liggéey xam ne mën nañ ko def si biir dëkk bi quoi. c'est xam nga mooy à travers xam nga gars yi nga xamante ne ñoo ngi jël gaal yi affaire yooyu noonu tu vois. on sait que le mal est profond et que dëkk bi metti trop trop trop mais xam nga ñun ñii ñëpp vous vous êtes de rien ni nga mel tey meloo ko woon dix ans si gannaaw xam nga man fu ma nekkoon dix ans si gannaaw foofu laa nekk tey jii nii quoi tu vois gëm-gëm la abnégation ba lé tax ñu yegg fii nii di wax ne que gars na nekk fii nii quoi. super xam nga jarul ñuy rey suñu bopp di dem si yeneen dëkk yi di gën a galérer quoi. super yeah. madame qui est en regarder se nomme. Kiné. Kiné <laughs> eh bébé mention spéciale 142 19 19 je répète 77 142 19 19 pour toutes les personnes qui veulent voir au niveau de leur région BMJ bien sûr en concert en soirée wala même nga ñëw sa jour anniversaire sax BMJ ñëw souhaiter le joyeux anniversaire c'est au 77 142 19 19 euh, Olivier ton mot de fin ça sera quoi alors merci à Yellow Watt qui nous comme d'habitude oui euh, merci à BMJ merci à notre chère euh, Miss qui invités. surtout di remercier sénégalais yi nga xamante ni restent toujours fidèles à la télévision Futur Média. di leen jox rendez-vous tout à l'heure fële ca RFM avec Carlou D qu'on reçoit aujourd'hui qui doit. faire son grand retour le 1er décembre. Au Grand Théâtre. Et puis au Grand Théâtre, voilà. Et puis du courage à tout le monde, voilà. Et, et bonne chance. en même temps, bonne chance aux Lions, vu ah, que tu as porté à, le maillot. Exactement, j'oubliais ça, j'oubliais ça. Et bonne chance à nos Lions, parce que la France, c'est pas une petite équipe, mais ça va le faire, Inch'Allah. Ok, dans le football, yo, le football, tu aimes La France, c'est pas une petite équipe, mais Amaro Diouf, c'est un grand joueur. Hein. Super. yeah. Moi, ce joueur, quoi. Yo. Wow, donc, gérant. Yeah. Moi, c'est un joueur. Man. yéen seen match yi doo leen ma jël xanaa. <laughs> non <laughs> pas yéen ngeen jël ma ma ñëw football mais ma football ak yéen parce que on am naa équipe ah. ok su ma leen naree wax sama poste fii du am chance. du am chance je pense que ma jël leen moo gën quoi. dañuy def benn match team PNG contre team BMG. exactement super exactement manager Gaal kale loolu. ayca ji tombe de fin. voilà donc je remercie qui depuis la Casamance la ñuy suivre voilà donc euh, il s'appelle euh, Bourama Bourama Djité nee na mafia lañ ko woowee mu ngi féliciter bien sûr BMG. di ko wax euh, job bi nice na. na Fatima Wali joyeux anniversaire happy birthday. Euh, à Kader bu RFM. voilà en train de nous suivre anniversaire am. voilà ñoom ñaar ay jumeaux wax nga dëgg yee donc Kader joyeux anniversaire aussi notre technicien. happy birthday à tous les natifs de ce jour ñi nga xamante ne ñoo ngi doon suivre via la page euh, Facebook euh, Instagram un peu partout team PNG team Roubaix voilà team Kennedy mention spéciale à The PNG avec Saint-Louis bu Youssou Ndour euh, Modé bu Youssou Ndour la famille tout le staff de Youssou Ndour ont supporté leur frère tout à l'heure euh, Biram euh, mention spéciale ils étaient en train de nous regarder mention spéciale à monsieur Youssou Ndour aussi qui félicite. artiste nee na laaj ko ndax euh, Yoff gars yi ñoo ngi jàppale seen artistes yi loolu lay laajte moom riche waaw benn artiste la. ayca. riche fuloo dafa lakkale. <laughs> riche fuloo da nga lakkale. ok riche fuloo sonal na ma. Madou. billaay riche fuloo sonal na ma. kon ñu ngi koy bégee bu baax si gars yi ñu ngi jàppale seen artistes yi bu baax a baax. xam nga. dese na yegg fu mu war a yegg yi ñu ngi jàppale artistes bu baax a baax. merci à Biram merci à Kina